Amadou Ba candidat wu France la c'est la France moo ko moo ko moo ko moo ko forcé Macky Sall Macky Sall tànn ko woon Macky Sall Ba nekkul woon ci xelam Amadou Ba ci boppam il fait du lobbying euh, pour Macky tànn ko ah Macky dafa yëg lu bëri lu def ci ginnaawam Amadou Ba euh, entourage yu Macky sax dafa def ay pression seen kaw euh, naxasaay tappale pour influencer le choix le choix de Macky donc dans l'histoire Macky a été le berné te Macky position bi neexul ci mbiri Amadou Ba ah oui. Ah, moom la nax eh, moom la nax et eh, loolu neexu ko. dafa tànn bu paree doog a xam ne. ah oui lépp lu muy def après lay xam parce que bon xam nga Macky moom c' est quelqu'un qui est kenn. Macky rarement lay ah, sollicité nit yi dafa doyloo xelam jàpp na ni moo gën a muus ñëpp xam nga bu demee ba jàpp ni mu ñor tànnal ka moo ko war a nga xam ne Macky moo gën a muus dix neuf millions de sénégalais xam ne c' grave ñun saltu njëkkoon mu tànnal ñu dañ ko ne kese organiser mu tànnal suñu te nga dem am na ñu naan Boun Abdallah moo nekkoon si xelam. waaw Boun Abdallah de du du xelu Macky gars yi koy waxee ay le choix du cœur rek man yëpp ay dafa am tappalekat ne si média yi xam ne ñoo bëgg def benn bashing ci xelu sénégalais yi te xamuñ ne sénégalais yi jamono ji vraiment dañoo war a ragal sénégalais jamono bi ñi nga sénégalais yi képp ku taxaw di wax balaa ngay wax xam nañ yaay kan xam nañ fa nga bëgg dem li nga waxagul sax di ko jéem a junj gay xam nañ la nga bëgg a wax fi ngay jéem a joxoñ naan mun na am ñoom yegg nañu foofu li ñu dof di wax yegg nañ foofu toog fa di la xaar maanaam askan bi dofuñu et malheureusement les élites dañoo yàgg yaakaar ni le peuple d'or le peuple vraiment dof lañu. Mm-hmm. lépp loo xam li yóbbaale c'est pas vrai. li koy firndeel mooy soo xoolee dialogue bi ñi demoon taxaw foofu askan bi il a su reconnaître l'ivraie euh, de la bonne graine. dañoo taxaw xool ne diw. gars yi ñu ngi jaajëfal euh, ñi représenté église bi. labbe ñëpp maggal nañ ko di ko béggee ñu fa toogal ne ñoo fa toogal lislaam ñoom Ahmed Khalifa ak ñëpp gis nga leen gaa yi yàq donc sénégalais yi dofuñu te instant yi ragaltuñu wax dëgg quel que soit koo doon quel que soit famille boo bokk ragaltuñu wax seen opinion ne kii tappalekat la wala kii tappalewul donc euh, fa la Sénégal toll moo tax homme politique yi war a am beaucoup plus de retenue et d'humilité dañu respecter davantage le peuple. xam ne yeewu nañ. Ah. di teg li nga xam ne intérêt askan bi newu ci. Mm-hmm. seen intérêt bopp ñoom ak seen njaboot kese lii la askan bi te lii nag wax dëgg yàlla ji nga askan bu pare ne man doyal naa ci nangam ah xanaa ku ñàkk xel rek waaye kenn mënul tere euh, loolu loolu dakk donc euh, arab dafay wax naan nee na desewul nit dara maanaam ni si derewul desewul dara ci dof ki nga xam ne dafa bëgg feeñal si jamono li nga xam ne yàlla bëggul mu feeñ dañ kooku dof dëgg la ku bëgg def ci jamono li nga xam ne waragul am kooku wérul donc euh, mënoo jiitu yàlla ci yàlla mu nam mm-hmm. waaye tamit mënoo jiitu askan ci askan bi nga xam ne dafa bëgg dem am askan bu pare damay dem képp ku taxaw ne dama koy téye ay ay ay dee ay coono ngay créé rek waaye askan bi dafa toujours président Macky Sall li mu nax ni yëpp du sotti dara du sotti président Macky Sall mujjanteelam lu leer la moom xam na ko xam na fi muy mujjee xam na fi njabootam di mujjee xam na ay nitam yi mu yàgg àndal commencé ko wor am na ñoo tey tey tey tey Macky bu perdre de pouvoir tey dina am ñi nga xam ne ñoo yàggu toog ak moom di lekkandoo ak moom di ko di sosal ay nit ak di ko indil ay xibaar di ko monter ak ay nit ñooñu ñooy njëkk dem di yàq dara ne Macky dof la yàggu nañ ko wax ne ko bàyyi li ngay def yàggu nañ ko wax bàyyi li ngay def waaye dafa dëgër bopp waaye gis nga léegi nag mu ngi nangam ils vont essayer de d'approcher le nouveau président parce que dafa am ñi nga xam ne c'est les les faucons du palais mm-hmm. c'est des gens yi xam ne bëgguñu nit ànduñu nit ki maanaam fauteuil boobu la ñu bëgg ku fa mënti toog benn la si ñoom et Macky euh, dina xam ne ñooñu duñu ay nitam te ñooñu ñoo ko wër ñoo koy defloo di ko wax loo ñooñ vont lâcher et dañ ko war ñu si bëri si ñooñu dañoo àndoon ak Ablaye Wade di lekk ak moom di wax ak moom di ko ruux di wax lu ne ba la daanoo fexeeñ ba bàyyi Ablaye Wade ñu dem ànd mag Macky su yi daan noonu lañ koy defaatee rek ñoom la woon fa woon maanaam waa nay neex lañ waa nay neex nag wax dëgg yàlla ku leen topp ci lu naqari ngay mujjee donc te Macky xam na naqaram Macky xam na fi mujjee de Macky n'a pas de secret sur ce qui va se passer dans les prochains mois xam na. mënul dugg Karim a manti dafa wax lu dëgg ñu jàpp ko flagrant délit waroon ko jox mandaa dare jàppi ji ko gars yi suturaal ko ndax copain président la donc fa la yem Ousmane Sonko ko jéem a dugal Ousmane Sonko laajul dugg Ousmane Sonko a un candidat son candidat s'appelle Bassirou Diomaye Faye Karim Wade kay moo moo moo moo moo nelaw ñàkk nekk kàngam ba nekk moom kese moo amoon candidature candidature ñu bloqué ko amul un candidat maanaam le PDS n'a pas de ah mais Pastef a un candidat il s'appelle Bassirou Diomaye Faye et c'est un candidat extraordinaire. Euh, homme de principe homme de vertu homme de savoir un homme bi nga un homme de son temps. ngi ni man bokkuma yuuxuma jooyuma def ma dara dama gëm ne yàlla moo na ma bokk. waaw nee nañ bu ñu tëggaatoon it dana am arrangé mooy ñi bëggoon bokk ñu tere leen. waaw mooy tappalekat yi rek mais man tappalekat yooyu man dama gëm ñoom ñëpp xam nañ bu ñu bu ñu tëggaatoon sax ba ñu bokk sax ñoom 1 pour cent mënuñu ko am. duñ dem mais ñii tappale kese la xam nga nag mbiru foog ma bokk rek naa bokk rek li yëfu yoxi tappale la dëkk dafa sérieux waruñu si boole ay caaxaan ay fo suñ dëkk bi aujourd'hui dañ ko caaxaanee fooyee ko boo xoolee dialogue bee ñu teg ay nit ñëw taxaw di wax du n'importe quoi nga xam ne dëkk bi si n'est plus sérieux daa am wax yu ñàkk fayda yi nga xam ne sax un président sérieux bu toogee kenn ko ñëwaat si kanam wax yu ñàkk fayda man quand j'ai vu le dialogue dama am j'ai été meurtri xam ni Euh, voilà ce qui se passe quand on confie le pouvoir à des hommes qui n'en noon ni la stature, euh, voilà, ni, ni la hauteur. Amouni ay hommes d'État aujourd'hui au pouvoir. Nous avons des, nous avons des parias. Nous avons un gang à la tête de ce pays. Un gang, c'est des gens qui complotent, qui font du mal. Donc, euh, président, bu dee président de la République, institution là. yenn wax yu ñàkk solo yeeg wax yu wax yu ñàkk teggi nii war ñu woon tax sax wax. waaye Thierno Alassane koy remercier ndax li mu def mooy yëfu li mu def il a il a a il a dafa dimbali Sénégal bañ tappalekat bi nga xam ne dafay ñëw à l'entrée di fen kooku mën a am chance après gagné réew bi di ko ne fen askan bi. kon Karim su bokkoon dafa doon am ay chance su gagné ndax lobby yooyu pour le faire gagner. mais Karim euh, électorat ñu bañ koy calculer Karim amul 10 pour cent. Oh. am 10 pour cent. donc ñun dañoo dañoo def lobby yooyu wax nga wax sànq lan lañ koy jëriñ. lobby ñoom sàcc geeg ndimbal gi ñu xam nga ñoom dañuy sàcc. Mm. élection moom vraiment Macky Sall si moom xam nga ne à part 2012 amul benn élection bu ñëpp kenn d'accord ni ma sa fi gagné élection. à part 2012 ah, dañuy wax élection sàcc ci Sénégal. Ah, gisoo Trump élection yi passé xam naa ñu koo sàcc sàcc amul dëkk bu amul mais fa am benn niveau sàcc bi xam mëntul nekk. d'accord maanaam sàcc bu flagrant c'est pas possible mais nag sàcc yu mineur yi nga xam ne yokkal kenn ay tuuti vraiment mën na nekk surtout bu dee askan bi dafa toog yenn partis politiques yi amuñu une couverture intégrale du territoire ñu le fichier ils son pas présent partout surtout yenn bastion du régime yi xam ne ñoo jàpp ni fond régime mooy dem gars yi foofu di di def ay bourrage ah oui donc sàcc moom day am toujours mënul ñàkk euh, waaye nag euh, am na vigilance muy am ak benn surveillance en temps réel bi xam ne dina tax ni sàcc du mën a nekk hmm. loolu nag wax dëgg yàlla ren bi euh, ni ma gisee les les les experts IT yu bokk ci passif euh, wax dëgg yàlla ay nit yu xarañ lañ ils ont pris toutes leurs dispositions pour élection yi sàcc bañ cee am te loolu ma ki xam ko donc euh, vraiment fu ñu jëm nii daal li gars yi di wax yëpp waxi tappale la scénario bu ñu jëm mooy fin de mandat après le 2 avril Macky n'est plus légitime pour ñun il n'est plus légal hmm. il n'est plus légitime il n'est plus licite il est il n'est plus un président donc wartul nekk wartul jiit su réew conseil constitutionnel dafa war a dafa war a constater que mandat bi jeex na hmm. du benn cas de comme lu gars yi ay président assemblée nangam mm-hmm.